ñu jàkkaarloo jot ma koy présenté yaakaar naa muy Ousmane Noël jot ñu koy présenté du ma ne Kaolack ko bëgg mais àddunaa ko bëgg sénégala ko bëgg ndaw la koo xam ne macha allah moom la jën Farba Senghor gëm Sall gëm Sarr jën Farba Sarr gëm macha allah damaa xër ci yow moom la gëm tey ñu jàkkaarloo moom tey fii ci Kaolack tey ci ziar bi ñu war ko jox micro bi rek mu wax ci ay kàddu ziar bi waaw d'abord maa ngi sant suñu borom baax a baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla tey may ñu fekkee fekkeewaat encore centième ziare. nga xam nga centième. nga xam ne euh, macha allah di ñaan yàlla à lu jëm tey lu commencé tey yàlla nañu ko dundaat cent ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ziare la. ndaxte mi ngi amee Léona Niassène ñu dëkk na Niassène ku koy def mooy maam Xalifatu Mouhamad Niass kan la koy defal kan lay ziyaare mu sëriñam muy Mawlana Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu te ku ne xam ne maam xalifa moo nekkoon nag avocat wu tarixa bi ku mës a laal Cheikhu wala nga joxoon ko baaraam maam xalifa damm na sa baaraam damm na sa tànk looloo waral nag ñu boole ñëw ñëpp ñëw ziyaare Cheikhu Tidiane daaneel gàtt yëpp ñëpp feetu ñëpp lekk ñëpp naan julli ci yonent Yàlla Muhammad sa alayhi wa waaye nag wasifa jaamu yàlla bégal jaam waaw waaw comme li nga wax rek bi nga gàmm gis nañ kilifa yëpp ñëpp ñoo xam ne dëkk nañ euh, ne mooy Léona Niassène tey nekkoon euh, euh, beneen réew wala Dakar teew nañ tey ci bës tey bës bi mi ngi xumb lépp ngi ñi ngi togg lu ne yàlla seen seen bi yëpp tey def nañ ko ci ziyaare bi ñu ngi ko doon waajal depuis très longtemps lu ñu ko lu ñu lu ñu ko jaral nag mooy bëgg suñu sëriñ mm-hmm. Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. tey ki muy ziyaare amul ci waawoon amul kenn amul lenn. mu la murid yaa fi. dëgg la laayeen fi. xaadir yaa fi parce que lépp laa ilaha illallah muhammad rasulullah la. te donc ku ñu moo tax jarale lu ne moo tax yëg-yëg bu ñu ci am rek mooy mbégte yëg-yëg bu ñu ci am mooy yëkkatiku mooy kontaan mooy beaucoup de fierté franchement yaa ngi gis mbokk yi yaa ngi gis doomu aadama parce que nit nit rek la mën a gis mënoo doon nit ba dépassé nit malaak yi sax di et donc euh, da war a bëgg di fier gis ñëpp c'est ça la vérité. doomu Kaolack fierté Kaolack ñu gis ne macha allah euh, bi ngeen di secret. Euh, secret c'est très simple. kenn moomu leen yàlla moo leen yor. Ousmane Ousmane bi yëpp mënu ma faj yi. lum néew néew new néew. sama ñaar junni wala sama junni laa lay jox matul la dépense ñaari fan wala benn fan. kon jaam yi yàlla lañ yor kenn yoru leen le plus important mooy accueil ku sañoon doo tàllal loxo ku sañoon da ngay toog sa kër ñu fekk si la. jaam bi yàlla bu doxee naaj bu tàng ba dugg kër jàmbur ibbi gëno gënoo ko ci yàlla mag la njëkk laa juddu. wërsëgam néew nga mujjee judd yàlla ibil la buntu wërsëg nga foo ne yaa fi nekk nanga nga sa bopp. kër gi kër la kom yeneen yëpp comme yeneen kër. bu jaamu yàlla rombee kër yëpp ñoom bi si kër gi yow yaa war a nekk seen jaam. moo tax kër gi su ma la wanee taaw bi taawu kër gi doo gëm. ndax da foore sax ñu ñëw di ut si soxla la parce que dafa nu mu bindoo la parce que loolu looloo ko war par force kër gi am na juróom-ñaari buntu kër xamoo ku fi bokk ak ku fi bokkut buntu kër gi mënoo ko xàmmee ci rax lay sol du jàppale si di kër gi nit mën na ko romb sax ba peut ba dépassé ko parce que suñu noonu la yore par force la amul ay koy xaar ay den nelaw amul fii ay nekku fekk ay ñuy xaar kook ay dafa jàpp amul fii ñëpp a parce que dara impressionné wu leen lu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah yàlla bu juddee ci yow dara du la impressionné dara du la yëkkati say mag yooyu bu ñu amee lu ñu am si teraanga da nga leen koy kontaan sa lépp la ñu doon waaye nag yàlla rek la ñu yow boo dépassé loolu rek ñu baal la ànd ak yàlla moo waral nag jaamu yàlla yi nga war a bu ñëwee di di la bëggee. te pourtant seen soxla yi mënoo ko faj nga xam ne ko yàlla yor jaam yi koo ci jox dara day dem rek def ko dépense reer mu jeex mu jeex kon ko yor jaam du yàlla lépp importance mooy kafa ree nit bu la indilee dépense cent millions cent millions jox ko dix mille ba nga am bala ko reetaan ak kaf moo ko gënal cent millions bu ñibbee dina kontaan waaye bu ma nekkee ci néeg bi jox la cent millions avec avec avec mépris ak jéppi dina jël cent millions yi de mais yomb yëpp da koy jooy. waaw ci yàlla tey sama gàcce gi ma nekk tey ci yàlla li la jël naa ko waaye faj sama aju rek moo tax waaye kii li ma def tey ay yàlla waaye nit bañ ko ko junne muy ñaan yow yàlla yàlla nga suturaal nit ki yow yàlla yow yàlla yow yàlla ba fajar te fekk junne nga ko may wala 2000 wala 3000 francs si joxin gi rek la man dara dara dara mënu maa yëkkati dara mënu maa tax ma beew gisuma dama gisul lu tax ma mën dara mënuma parce que xam naa ne lu yàlla def nii xam naa du man <laughs> sama mag yee ma gën fuuf fuuf parce que Cheikhou sama mag yee ma gën fuuf fuuf ñoo ma gën ci jaamu yàlla ñooma ma njëkk juddu ñoo ma gën a baax ñooma gën a jàng ñoo ma ëpp diplôme am na ñoo xam ne seen doom yi ñoo ma ëpp diplôme ah nga ne. kon. bu bu bu bu bu amee. loolu bu amee xamal du yow. ba muusee. yàlla dafa am lu mu def rek. waaye du yow parce que man fàttaliku ma fu ma wóoralee yàlla lu tax yàlla di ma defal xiwal. fàttaliku ma fu ma jullee julli joo xam ne yàlla mu na ma si defal xiwal. fàttaliku ma fu ma defalee yàlla man fàttaliku ma dara lu ma defal yàlla lu baax. barki Cheikhou Tidiane moo tax lu ma yàlla defal ci xew rek dama koy pour ma dellu njukkal yàlla te mënuma woor cent ans mënuma julli cent ans pour ma dellu njukkal yàlla nag mooy jaaw yi la am ma lañ bégal. ñu gis foofu jaaw la nga di bégal ñu gis ne Ousmane léppam social dama ñëwaat foofu rek toujours parce que yaakaar naa Sénégal yi képp koo xam ne gis naa loolu la wax Ousmane social la day dox ci mbedd mi comme ni nga def ci day dox ci mbedd mi jël ñaari junneem jël cinquante mille di ko jox maire yi jaay caas mais commune bi gis nañ li nga def ci tam vraiment loolu social def ak yëpp di ko coow nga yëg sa xol da ko xam nga nit jàngati alxuraan yi ñu jàng yi ñu jàng nii ñëpp gis nañ ci téere yi nit joxe na ba nit di ko ñaanal yàlla ba fajar mu dem àjjana bañ na kii lu mu defati rek neex na yàlla waaye gisaguñu fu nit jullee bañ nañ bañ ñaanal ko yàlla ba ba di ko defal àjjana wax joxe. ñu nit di jullee ba am maqaama ci yàlla am doon wàllu yàlla. ñu nit di wooree ba am maqaama doon wàllu yàlla am wilaaya noonu la di joxe ba am wilaaya. xam nga loolu. mun na joxe am wilaaya doon wàllu. xam nga joxe de joxe de yokku fan. ku lu social xam nga jàkk nu mu fooree juma lan la du néegu yàlla. Hmm? yàlla mu ne nga tabax junne jàkk nga jox nit bu lekk moo gën. nga tabax jox nit bu lekk benn mu lekk ba suur. moo gën nga jël alal tabax junne jàkka. wala notti benn xisu benn waay. dafa ñëw waliw yàlla am kasu mu ñaan yàlla na ko may lu ma la ma a ñaan nga may ma ko. lu tax ma ñaan la domp góor ba léegi mënoo ma ko may. te man lu ma mës a ñaan man dama am ijaaba lu ma la ñaan may nga ma ko su ma su ma sama la yàlla faat ko sa faat ko te man boobu léegi ma la ñaan domp góor mënoo ma ko may. ma lay laaj lu tax. yàlla na ko sama jaam bi te ma wax la lu tax dama xam domb góor su ma la ko mayee a fleur de l'âge 30 ans bu ko amee day dee te foofu ngay bëggee doom ji te bu ko amee da ñaan jabar te bu takkee jabar ji ba jabar ji sëy si ngoon si lay faatu te naqar googu bu ma la ko teg te sama xarit nga ah, moo tax moo tax ma bañ la doom ji góor ji mu ne ko yàlla may ma doom góor rek man neex loolu balaay boobu noonu ma ñam ci tuuti sax bu génne àdduna ñoo ne dem na. yàlla na ko ah yaa wax de mu ne maa wax may ma ko rek yàlla na ko acca yàlla may ko doom bu góor. xam nga 30 ans daa bëri fii xale bi di màggee ba foofu fàtte na mu dem ba jëmmi jamono rek xale bi màgg xale bi màgg ba ñëw ba ci papa na ko papa dama gis soxna bëggoon ko ñaan mu bëgg nga ñaanal ma soxna dafa nga ñaanal ma soxna rek mu ko yaa si ñaata at nii mu ko fanweeri at 30 ans mu ne mu def mu def noonu mu ko waa demal dinaa si baax waxtaan dinaa la oo mu dem un mois ñëwaat papa bi ne ko demal naa ci bàyyi xel saa borom saa borom feeñu ko ne yow yow sama jaam bi soo ko mayul jabat bu mooyee yàlla ma rikki la ma dindi la ci lislaam <laughs> ndogal bi ñëw na foo nga may ko jabar hmm. mu may ko jabar jabar ji sëy jabar ji sëy ni nga ko mën ci zaahir ci suñ jamono ji ñu sëy ñoom Ami Ndiaye gars yi defal michu yi michu yi ban saf jabar ji see ñu jox ko laax mu lekk affaire ñu joxe noonu boo sëy see ñu muri ko ba ñëpp ñibbi. comme Ousmane Noël ak Aïda Ngom rek yal na ko yàlla yërëm ñu ñëw toog nekk suñu nekk jabar ji dagg ci michu bi dafa ko ci plat michu bu ne xar lumb def ci pomme de terre yi def ci affaire mburu yi crucial lépp teg boisson yi. ñu ibbi ko mu raxasu sol civilement am jabar jaa ngi toog dem bay dugal loxoom am benn góor yàlla mu toog ci bedd bi ci sàkket bi ne ku may sarax te yàlla rek tax yàlla yokku te gudd saw fan dama xiif ku may sarax lu ma lekk ngi jëmm yontu yàlla Muhammad yàlla guddal sa fan waaye ci loxoom rek rek jël affaire bi xaal bool bi bool bi yëpp yëpp lekkul da jaayante jël affaire bi rek rocc rek tegal wàllu yàlla bi xamaloon na kooku sax wàllu yàlla mu dagg ci lekk bi lekk lekkaat lekk ba suur lekk nag ba palaat bi des ay yàq waa ji la ko defee mu indil ko boisson ci ci misaal indi ko mu naan naan ndox ba géex na ko maa ngi lay ñaanal ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla nga gudd fan yal na yàlla musal ci gàtt fan yal na yàlla suturaal yal na yàlla may mu ne ko amin baay mu teg yóbbu kii bi ma caat ci yax yi fi nekkoon naan ndox tëdd léegi papa ji mi ngi xaar xaar fajar gi jot rek ñu yuuxu papa jaa ngi wér di rek ñu yeewu suba xale bu góor bi jóg sangu sangu set. sangu set sol xaftaanam julli taxawal tisbaar mu mu mu taxawal takkusaan mu taxawal timis mu taxawal géey mu taxawal fanaanaat yeewu suba fanaanaat fanaanaat bu un mois waaye dugat xaw la ah na ko man dama jaaxle yow sa wax bu su dëñ te dafa am loo ma ne ma sa doom ji boo amee 30 bu bu tekkee ba ci guddi ci lay faatu defaat na un mois ci diggante bi mi ngi gën a naay mi ngi gën a leer te mi ngi nekk soxnam te su ma jublu sax soxna si wan na lor lor gu ndaw lu waral mu ne ko waaw. man yàlla maa la ko waxoon xam nga yàlla suy wax boo déggee alxuraan ñun yàlla rek lay wax ndax moo des yàlla rarement nga dégg yàlla man a ma ñun yàlla rek ndax moo des yàlla moo tax fëgg dënd baaxul moi moi baaxul moi yàlla suñu borom bu mu ne ma waaye ñun rek lay wax mu ne man maa maa la waxoon ne la sa bu am 30 boo ko may jabar mu faatu waaye dafa am xéwal goo xam daf ko def te kam ko jox sama xarit la muy wàllu yàlla te duma gàntu ñaani walu yàlla man yàlla duma gàntu ñaani walu yàlla daf ne ko yàlla nga dund gudd fan moo tax atam 30 ans la war am dina dund 90 ans ñaani kuñ mer namit no lay def ñaani kuñ yàlla bu mer aussi mm-hmm. bu la ñaan leen lay def loolu koy ko indi la du joxe mm-hmm, joxe wallaahi joxe ah? du joxe moo ko jox waaw ma kon joxe am na importance. est-ce que xisa boobu dégg nga ko ci julli. déedéet. dégg nga ko ci woor. déedéet. sa bopp nga ko defal ah. sa bopp ko defal. su julli wala lu la leer na wér na. waaw li ngay joxe même bu nekkee ngistal laa wax nii. joxe gi mu sax. bu dee bu nekkee ngistal yàlla daf ko gis. moo tax gars yi di wax ne boo joxe tin caméra yi dégguñu yàlla. dëgg la lu baax da koy wane. des fois mën na moo tax yàlla mu ne balaa nga ma jaamu xam ma. dëgg la ñu bëri dégguñu yàlla. dégguñu yàlla mu ne balaa may dégg ma ne balaa ngay joxe rek caméra yi tiim la. lu baax dañ koy fësal. dañ koy fësal ko doon def yàlla mu ne lu baax mu ne boo joxe bu la neexee wane ko ma gërëm mu ne bu la neexee nëbb ko ma gërëm. yàlla moo ko wax de ne boo mu ne boo ko nëbbee di nga xam ne man yàlla maa ngi fépp je suis omniprésent maa ngi fépp gis naa ko waaye boo ko wanee di nga xam ne mais yàlla jëf ju baax jii may def na ko ñëpp toppandoor ndax jëf ju baax moo gën gu bon. waaye léegi Sénégal da ngay gis ah. nit bi def li bon di saaga. mu mu am émi émi bëri. koy may def teraanga ñun dañ gis dal waaw yàlla yàlla fay na man kaana lillahi kaana laahu jalla lahu wa man bil maayi loo xubbila laa usalli bi taslimin bila adadin alay bilaali wal asaabi wal fudala lam yabdu mislal musa muhammadi siran wa jaaran fil baraya samadi maddal lana islaama wal kufra maha wa bi nasiihati li kulli sama يقود بالسائر والباطن من أتاه لله في كل زمن خدمته عن الغيوب السبا والاستقامة وصفا وابا ليبان كون المسا رئيسا لكل من قد فضل روسا قل خدماه فوق كل رقبه من استعار قل كل من خبا محمد مثاله لم يأتي فيما مدى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثل له فمثله لا يرد له سيادة له البراء يوم ألس ولد السواها والنبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل براءه بديع من خير جمال وسنه قدوس عن خير كمال كون نبي المنتقى محمدي خير الورى مختار إن سمدي كفيت كل درر يالله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أهواه بسر لا إله إلا الله على نبي المستوى يالله صل بلا إله إلا الله nang nu defal saadatu noorayni nang nu defal saadatu daarayni waltuf bina wa qawwina wa kun lana wa hab lana husnal khitaami rabbana wa salliyan ala nabi wa sallimi waqdi bi haajati kulli muslim barki Tuuba